salaamaaleykum mbokk internet yi Dakar Midi euh, tey nii ngeen ko gisee ñu nekk fii ci plage bu Besseyao gannaaw démb euh, kàddu yi nga xam ne ministre bi nga xam ne moo yor wàllum biir biir réew muy ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye kàddu yi nga xam ne jibal na ko ci wàllum takk masque yi nga xam ne mooy euh, ngir xeex feebar bi ak tere ñu dajaloo ci palage bi tey nii ngeen gisee ñu ngi nii ci plage Besseyao ko xam plage Besseyao ak samedi nam daan mel jallaw jallaw gi ak nit ñi fees dell sangu geeg football beeg seen ni ngeen ko gisee plage dañ koo tëj ràpp seen naa fi sànq ay takk der maanaam seen fas yi sa waa gendarmerie xam naa du ñàkk danañ doxantu ba ci ñoom jëm leen a xool xam naam sax doon mën a wax waaye ñu jëm leen a xool wan leen image yi nii ngeen di séenee place bi nit doxantuwu fi nii nga ko séenee ak ko xam tàngoor wi jamono ji ñu toll ak plage bi bese yaawoo nam daan mel waxtu bi da nga ñëw fekk mu fees dell macha allah tey seen nga ko nii géej gaa ngay duus mbaar yaa ngi nii wiit ni ñuy def mooy dañuy dugg ci biir gën a xuus ba ca kanam xool place bi nga xam di leen daje kenn ku nu mën a dékk suñu micro waxtaan ak ñoom ba ca kanam. Euh, ni leen ko waxee ca sànq ci bi ñuy tàmbali ñu nekk fii ci place bi Bessayaaw ñu teg ak kenn fekk fii ci place bi muy defar yaramam kilifa gi nii nan la. Euh, fay naa leen. tey ñu fekk la fii ci place Bessayaaw nga nekk fii defar sa yaram gannaaw ndigal li nga xamante ne ministre bi yor wàllum biir réew mi ministre de l'intérieur joxe ndigal li démb tey ñu gis place bi picc fi gis takk der yi naka nga jàngatee loolu. waaw euh, man euh, Yoff laa dëkk Lébu la mais mun naa wax ne fii suma euh, suma place la alors chaque fois fii laay ñëw di dalu di tàggat suma yaram aussi li may nekk mag yëpp mais surprise laa am parce que j'étais pas au courant que ne le ministre joxe na instruction que dañu dañu aaye plage yi mais bi mu ñëwee ba yëg ko comme ñëw naa bu pare bon ma ne naa passe temps bi rek toog li ma naroon def tàggat yaram bi wala sangu biir géej ma bàyyi ko ma continuer suma temps ba vers 7 ma dellu mais man gis naa ne lu baax la lu baax la parce que euh, sincèrement man dama tiit en tant que sénégalais parce que euh, pratiquement suma taalee suma oto di ñëw fii ci plage bi damay gis ni ñu doo gis nit ku takk masque si tu vois cent personnes peut-être une dizaine de personnes ñooy takk ay masques te loolu c'est très grave c'est très dangereux ba ndëkk lii nga xamee ne mesures yi nga xamee ne moom la état bi jël ministre bi wax ko dégguma lépp mais xam naa ne à près li mu li mu wax war naa ko xam naa ko loolu je trouve que c'est une très bonne chose loolu man dama dama ci ànd sincèrement parce que dama doon togg suma waa kër di leen wax ne vraiment Macky Euh, euh, euh, décision yi mu jëloon na nañ ko reprendre nañ ko reprendre comme sa feebar ñu yàlla mën ñu suturaal ñu génn ci. comme tey ni ñu ko gisee nii plage bi gisuñu fi lu dul takk der yi tey ñu wàcc ci plage bi fees fi dell te ku xam samedi bese yaawoo xam nan daan nam daan mel ni nga ko waxee sànq sa tàmbali waxtu bi nga ñëw am surprise tey lan ngay dénk askan wi. askan bi daal li ma leen di dénk mooy vacances yi le. trois quarts euh, jeunes yi di ñëw plage te boo xoolee douze mois yi pratiquement trois mois moo si vacances yàlla def na euh, natt bi ñëw feebar bi ñëw mbas mi ñëw euh, nga muñ toog sa kër muñ ñetti weer je crois que loolu du dara jeunes yi li ma leen di conseiller mooy ñu muñ ñaan yàlla li jële ko fi comme ça ñu mën a reprendre suñuy activité parce que le fait que état bi ñëw wax ne plage yi dañ ko interdire buñ ko waxee rek c'est parce que xam nañ ne rassemblement bi ñuy def toog si plage yi di naan ataaya di di di di di entraîner di tàggat seen yaram et tout nekk nekk groupe ku nekk xam na ne loolu metti na trop parce que soo ko privé jeunesse bi ah soo leen ko privé pratiquement euh, euh, euh, privé nga leen loo xam ne metti na leen waaye nag loo xamee ne pour sa sa sa sa wér-gu-yaram la moi je trouve que c'est une très bonne chose moo tax plage mu mel nii na continuer comme ça ils n'ont qu'à continuer bu ñu desserrer nañu continuer nii lii lii mu demee nii nañ continuer bu fekkee ne gis nañ ne mooy tax feebar bi dellu gannaaw mais man day sincèrement je trouve que man li ñu ma privé que ne may ñëw toujours plage man gis naa ne lu baax la lu baax la pour jeune jeune la jeunesse sénégalaise. jërëjëf kilifa merci. kilifa gi nuyu nan la. waaw ñu ngi leen di fay. tey ñu fekk la fii ci palage bi ñu xam ko xam plage bi Bessaya wa samedi ni mu daan mel démb bi ministre bi joxe dogal li tey ñu xëy gis place bi nii mu mel yan kàddu nga am loolu dooñ toon may. waaw ah, kàddu yi ñu ci am mooy euh, donc jël suñu matuwaay rek ñun ñëpp ñu ci jël suñu matuwaay di wax ni lay ministre bi wax euh, mesure de barrage yi même ñun ñu fi nekk nii dañ ko jël parce que fi la ñuy liggéeyee ça fait des années fi la ñuy daane suñu doole euh, war naa ànd ak mesure d'accompagnement parce que nit ki boo ne ko bul def lii war naa am loo ko jox parce que fii ñu fi nekk fii la ñuy daane seen doole ay borom njaboot lañ ay père de famille lañ donc boo jëlee ay mesures la barrière da nga war a jël mesure d'accompagnement. lépp yéen fi mu toll nii seen liggéey dafa taxaw te amul kenn lu ci waay def. amul leen lu ñu def amul lenn lu ñu jox amul fenn fu ñu woo dañoo xëy xëy rek joxe seen mesure donc état la quoi. état kenn mënut a ko jox moom gis ngeen ko ni mu mel gis ngeen ko gisu leen fi kenn voilà. mais yéen xanaa laata ñoo jël mesures yi yéen ñëw nañ fi waxtaan ak yéen wala. ñëw fi waxtaan ak ñun mosuñ fee ñëw waxtaan ak ñun. kon da ngeen xëy rek yëg ko ne ñun ak yéen a ko yëgandoo. ñoo ko yëgandoo. ñi ñëw ci place maître nageur maanaam ñi nga xam ne ñooy taxaw ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di sangu si kilifa gi nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay kilifa gi. tur bi naka la. Baye Góor gi ñaa. place ba si yaaw. Baye Góor gi en tant que maître nageur tey fii ci place BCEAO mesure yi nga xam ne mesure bi jël na ko euh, ministre bi jël na ko démb muy dogal yi wàcc ci démb tey ñu ñëw fii place BCEAO samedi ku ne xam ne daan heure bi nam daan mel naka ngeen jàngatee loolu. waaye gis nga ne instant bi moom mu ngi nii ñu ngi nii xëy na ñëw toog comme bi gën na ñun contrat ñu fi indi. tam mairie lañ nekk di li suñ contrat démarré na ñëw nañ toog ba suñu heure wàcc jot rek ñu dem gis ñu ndëkk ñu waaye mesure bi mënoon nañ ko xool beneen ENAP buñ koy jëlee. tey ñëpp ñu toog si kër yi am na ñoo xamante ne ñii dañu am feebar il faut ñu wàcc géej yooyu war nañ ko kër calculer am na ñoo xamante ne tamit ñu ngi si géej gi si la ñuy suturloo di si gañe di yóbbu di jox seen njaboot boo ko defee rek am nga ñooy gàllankoor lu bari quoi. mais laata ñoo jël mesure yi xanaa ñoom ñëw nañ fi waxtaan ak yéen wala yu demee noonu. non côté boobu moom gisuma ko chaque jour état Sénégal bala muy jël dara na xool secteur yi xamante ne si la gars yi jëfandikoo ñi siy liggéey ñu ñëw toog waxtaan naa ñoom xool yéen métal lañ war a jël ñu def ko waaye ñëw rek joxe benn méthode dañuy ànd ak ñoom ndax borom doole moom kenn mënu xëccoo moom waaye nag ñu ngi leen di ñaan chaque jour bu ñuy jëlati benn affaire nañ toog ak ñi ne ñooy liggéey si milieu yi ñu waxtaan ak ñoom. kon mën na ni dogal bi laata ñu ko jël ñu yéen kenn avisé wu leen. non man day wax dëgg yàlla ñun day dégguñu kenn ko si masa wax ne dañuy di arrêté dañ xëy rek déglu dégg affaire bi tey xëy ñëw gis ñu kenn ñu toog jàpp suñu li tey ñi ñuy liggéeyaloo tamit bu ñu ñëw ay nañu ay ke jóge leen si place ñun tamit dañ fiy jógee kon contrat ñu fi indi muy mair mairie Dakar tey bu oote woon na ay kay yéen métnageurs yi ku nekk dellu sa kër ñun tamit dañuy dem dellu delluwaat suñu kër toog. kon yéen sur contrat ngeen fi ne maire maire de Dakar moo leen fi teg ngir ngeen saytu xale yi nga xam ne ñu ngi fi ñoo di sangu. ñu di sangu ñoo leen di surveiller de Dakar moo ñu fi teg. place BCEAO naka la daan mel sam samedi heure bi non samedi heure bi moom wax dëgg yàlla boo fi daan ñëw moom mooy loolu quoi dangay. kontaan da ngay gis ñi ñii di foo ñii di sangu ñii di def ku nekk sa activité am na ñoo xamante ne ñëw place duñ sangu duñ def dara dañuy ñëw rek toog féexlu boo seen heure bi ñibbi ñu dem am na ñoo xamante ne ñëw pour sangu am na ñoo xamante ne dañ ñëw pour football. ak fi eh, jamono ji toll pandémie bi maanaam coronavirus mbas mi nga xam ne moo ne ci réew mi est que tamit nii gënul woon tey ñu ndax ñu mën ko tënk bu dee benn weer wala ñaari weer ndax mbas mi mën a dellu ginnaaw nit ñi dellu si waat seen i. xam nga àdduna loo mënti gis rek waxtaan la coronavirus am na fi dëgg la moom lañ wax ne am na fi am na ñoo xamante ne dañ feebar il faut géej bokk si ñoom tey yenn ñuy am feebar ñu war a doxantu ñëw xool booru géej gi nii rek wàccee benn naqar bi ñooy nan la ñuy def. kon géej am ñoo xam ne ñëwuñu pour sanguwaay dina ñëw ngir faj seen feebar. géej li muy faj saal boppam moo bari tey man nga am problème sa kër. Mm-hmm. yaa sa sonn ngeen am problème jaxasoo nga ñëw géej. Mm-hmm. yow kese toog jàkkaarloo géej gi nii rek am na lu muy gindi si yow. Mm-hmm. loolu bu ñu ko xeexee ñun ñi ay ca nan la ñu ñuy def problème day gën a yokk quoi Hmm? kon corona am na léegi nañ waxtaan ah nit ñi ñu xool ni ñu leen di doxee ku nekk jël say matuwaay kon tey man maa ngi ñëw place di liggéey si jël naa sama masque li Karera Kane buy ñëw jël masque am protège aw jël say matuwaay waaye pour xañ géej gi na ay dañuy xañ géej gi non kooku bokkul si loo xamante ne lii mooy loolu quoi loo mënti gis a àdduna nañ ko kon yow daal su ma la déggee gars yi mënoon nañoo ñëw géej gendarme yi takk der yi ut ay euh, distanciation xam nga maître nageur am na ñoo xamante ne fii borom si mbaari la ñuy liggéey si lañ yore seen ak njaboot tey kenn xëyul buñ toogee ba ngoon ay ca fan la ñoo fan la ñuy jëlee loo xamante ne dañ koy yóbbu seen kër. déet xanaa ñàkkul tamit nguur gi dina am lu mu leen jàppale ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey ah man de wax dëgg yàlla depuis cinq ba léegi nii maa ngi fi quoi hmm. tey gi gisoo ñu ngi toog ba suñu wariñu bi jot ñu dem di kenn kaw fi gis moo fi lii te gisaguñu loo xamante ne nguur tamit. jàppale nañ ñu ko gars yi gis nañ seen bopp état bi loolu la ñuy jàppalee quoi man gisaguma loolu moom. ti Tidiane Diop. Cheikh te ñu fekk la ci fii ci place Bessayawoo ndax da nga ñëwoon pour féex la wala ñi ñuy liggéey fii nga bokk. non on des plagistes fii la ñuy liggéey quoi. naka ngeen jàngatee ndogal li nga xam ne ministre bi jël na ko démb. waa di si kontaan rek di xam ne xam nga rek xam nga loo xamante ne ni si kaw la jógee mënuñu si dara. Mm-hmm. mais ñu li ñu gënaloon mooy ñu bàyyi ñu liggéey quoi. parce que fii ñu si bëri nii bi ñu arrêté suñu liggéey yaa ngi gis ñun ñëpp dañu toog defuñu dara dañu war a bàyyi ñu liggéey parce que ñu liggéey lañ am liggéey lañ am ñu bëri dañ bàyyi suñu lépp ñu géej yi yàlla géej la ñu nattoo quoi yàlla moo ñu nattoo géej bi si yaaw quoi xam nga ay góor yàlla lañ dañu war a am jabar dañu war a am doom te si géej ji lañ yaakaar dañu bàyyi ñu liggéey. mais Cheikh ak euh, firi mbas mi fi mu toll. tey nga yaakaaroon ne bu euh, comme li ñuy wax Dakar fi la yëf ëppee paccax paccax gi ak gone yi ni ni paccaxoo ci ndox mi noonu du yokk yëf yi wala dafa am da ngaa jàpp am neneen nuñ ko waroon defee. mais mais am distance ngeen wax gars yi sax nga nga moom bu mu doon wax dafa woon wax ne na gars yi jël seen distance. géej jël fi distance dana jafe de. mais mais tamit di ñu tëj ak ñi stressé wu ba kaña di tëj nit ñi xanaa nit ki boo koy tëj sax nga jox ko lu mu lekk jox ko lu mu naan mais yaa ngi tëj nit ki ko mu lekk joxoo ko mu naan. ah ñun géej lañ am pour soulager wu gars yi dañu war a dem géej pour dindi seen stress mhm. mais boo leen tegaatee stress da ngeen ñu gën a sonal sénégalais yi ñun liberté lañ xam bi ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla mu jóge fii ñi nga së së Touba sëriñ li mu wax yëpp wax na ko nee na bu dee feebar bi ñaan moo fi jëlee def neen lépp mhm. wàccel nañ kaamin def neen lépp dañuy waxante dëgg mais politique moo si des mais bu dee ñaan rek gars yi ñaan nañ wàccel nañ kaamin def neen lépp lu war a tax feebar bi jóge fi xanaa kay dañuy politique bu dee wax dëgg rek a neex yàlla. Cheikh da nga jàpp ne yëf yi politique da cee rax. non man loolu laa gis ah man loolu laa gis man dama jàpp ne politique da cee rax parce que yaa tijji géej gi ba mu neex la nga tëjaat ko booy tëj kay na ngay tëj benn yoon. pourquoi nga tijji ko ba été bi démarré ba xamante ne fi mu digg été bi neexee nga nga ñëw tijjiwaat nga ñëw tëjaat ko. kon man daal su ma la déggee da leen a mosal ba ngeen tàmbalee tàqamante ñu rocciwaat tàngal bi. effectivement effectivement parce que dafa neexoon commencement bi ñu commencé laal suñu xaay ñu ñi di bëri samedi dimanche boobu daa ñëw da daan fees del man loolu ma jaaxal ndax samedi bese yaaw moom tuq sa bën la daan doon. rawatina heure bi non effectivement da daan neex trop wax dëgg fa yàlla da daan neex trop encore une fois ñun ay ndaw lañ nekk si liggéey am na ñuy agressé am na ñuy sàcc ñun ay góor yàlla lañ dañ bëgg fii lañ yaakaar ñun géej lañu yàlla na nattoo fii lañ bëgg amee suñu xaalis fii lañ bëggee takk suñu soxna fii lañ bëggee amee suñu doom kon nañu yàlla nañu bàyyi ñu liggéey quoi ngir yàlla Macky Sall maa ngi lay ñaan ñun ay jeunes lañ ñun sàccuñu agressé wuñu ay jeunes lañ ay doomu yoof lañ on est des Lebu on est des Yofois ñun ñu ay doxandéem de samay goñ bu baax ñun ay doxandéem ñun ay doomu yoof lañ gars yi dañuy lab ñu ñu sóobu jëli leen génne leen ci ndox mi ñu nekk ñu fi nii rek kon dañuy bàyyi ñu liggéey quoi loolu la quoi te bañ a bàyyi politique quoi nañ ci génne politique bi feebar bi am na ñëw gëm ne loolu man waxuma feebar amul de mais politique bi moo ëpp nañ bàyyi wax nit yi dëgg ma loolu laa gëm maa ngi jégalu jaajëf Cheikh tey boo amoon message booy ak jeunes yi nga xam ne ñoo naan ñëw place ban message lay doon man de état bi leer rek laa koy lancé ñu xool beneen méthode boo xamante ne mën nañ ko def pas lii nii tey dañuy tere place nañ na non terme yii la règlement bi lii la kuy ñëw na nga jël say matuwaay respecter distance bi gars yi ñëw nekk si jàmm mënoo tëgg si kër yi chaque jour non tàngaay lañ nekk léegi courant bu coupé amoo foo toog nan ngay def hmm? kon dëgg lii lañu yàlla jox nañ leen si ñëw ñu toog ñu xool benn méthode lañ koy defee moo gën ñuy ñëw di def lii loolu rek laay lancer message appel bi jërëjëf ah ministre de l'intérieur loolu rek lañ koy lancé quoi nañu dimbali ngir yàlla ñu xoolaat beneen méthode la bu ñu mën a def waaye pas ñëw ñuy teg nii waaw. tey ba woon message booy jox état bi ban message lay doon. ah mais ñu jàppale ñu def ay mesures d'accompagnement boo jëlee mesure de ay mesures de barrière d'accord ñun ànd nañ ci ak moom respecté ko ah mais dafa war a ànd ak mesure d'accompagnement. mais yéen ñi nga xam ne fii ngeen nekk muy seen bërëbu kaay ndax takk der yi sonaluñu leen. non takk wax dëgg yàlla sonaluñ ñu. ñoom sonaluñu wax dëgg yàlla sonaluñu waaw gisuñu ñu fitnaal ñu defuñu leen ñu ngi def seen liggéey quoi mais sonaluñu naan nag clients yi bu ñu leen gisee ñoom duñ fi ñëw waaye. kon su ma la daal ñoom li ñuy def mooy comme bu ñu ñëwee fekk fii ay nit dañ leen di yëkkat dàq leen. ñu dem dañ leen di dàq ñu dem. dañ leen di ñu dem déjà gis nga leen. kon amoon na benn benn nit yu tàmbali woon ñëw benn nit yu tàmbali di ñëw mais dañ leen di dàq ñu dem. ñu lay jaajëfal bu baax. waaw ah, merci beaucoup. jërëjëf.